salaamaaleykum mbokki internet yi nuyu nañu leen bu baax a baax alors comme ni ngeen ko gisee nag tey dañu doxantu ñu ngi fii ci euh, garage bu buntu Pikine xam ngeen ne tey ci samedi bi lee lu dox suñu diggante ak màggal bu Touba ñaari fan la donc euh, taalibe ñu ngi euh, jubali foofulee ca ville bu màgg bala muy Touba Mbacké alors ñay nag ñu daal di ñëw doxantu fii fas yéene waxtaan ak chauffeur si wax fas yéene aussi waxtaan ak mbokku taalibe yi passagers yi pour xool pass bi ana fan la toll parce que xam ngeen ni Sénégal moom bu amee li nga xamante ni moom mooy ay fête wala li nga xamante ni moom mooy ay màggale ki gàmmu dañu baaxantaloo di yokku pass yi que ren chauffeur si yokk nañu paas yi donc loolu noonu yëpp nañu ko xam euh, ci reportage bu ñu nekk de amal fii ci buntu Pikine nañ leen dénk suñu micro képp koo xamante ni chauffeur nga képp koo xamante ni nga wala ngay passager pour euh, jéem a xam transport bi ana naka la demee fii euh, ci buntu Pikine ak taalibe yi nga xamante ñu nga jëm foofu la ci diwaanu Touba ci màggal grand màggal bu Touba 2023 bu baax a baax a bi ngeen ànd ñun merci beaucoup bis la rek. bilaay benn bis rek bu jeexee rek jeex na. mais yoon bi baaxadul. non non demee nag. yoon bi baaxadul yoon bi daa xat kay. Bambey ba Touba dafa xat. oto demee oto digul ba sëñ Bamba. loolu moo tax loolu moo tax ngeen yokk def ten taw. Ah, non ten taw mais benn bis la. bilaay bu jeexee ñoom seen ñoo xam ne lu la neexee di fay ay 1000 francs ak téeméer ak. ngeen dawal yërmande ak mooy loolu noonu. moo moo tax benn bés rek bu jeexee rek jeex na. gars yi nga di profité de. bu jeexee rek jeex na. jaajëf yow du jàmm xew sama ñu ngi ziar yaa ngi am jàmm naka yoon bi. réew mi nan sant Serigne Touba. maanaam màggal gi jotagul sax mais doomu aadama fi mu nekk nii rek nan waaye affaire bi sëñ bi la dama bëgg ñu fonkaat sëñ Touba jàpp ko te xam mooy kan Sëfoor Amparante Koksor ak ñëpp def nan barke alquranu karim am leen jàmm yéen. Touba 2000 la Touba 2000. la waaw Touba ñaata la lay maagalaat ñaari junni la. ro a ngi saay a nag a ja xarru bi. <laughs> yow yaa kaar ak lépp ñaari junni la yow bis nga yor ah. waaw man bis laa yor waaw bis. cent ah. douze place mais manqué na tuuti nag. manqué na tuuti waaw waaw mais lan da ngay yeb dem dawal ñëw. Eh. sol ñaari gasoil. day eh. eh, xaw a métti nag quoi. ba pare yoon bi xat waaw ak yoon bi xat quoi. daa métti si gone yi de. bu métti doon du yeb loolu. yaa ngi leen dawal tuuti yor maa ne dëkk bi daa dafa yi lan lay dàq loolooy problème bi quoi transporteur yi boo wérsiwul yu dàq la quoi loolooy problème bi Fall ñu ngi lay ziar naa ngi ziar bu baax yaa ngi am jàmm sant gërëm ñu fekk leen fii tey ci garage bu buntu Pikine ngeen eh, woo nekk di waajal màggal gi eh, mën nga wax rek eh, par rapport ak oto yeeg paas mi waaw màggal gi moom wax dëgg fa yàlla paas yi seer nañ paas yi seer nañ en même temps oto na mais manqué waaye oto bi tak sax bu oto manqué woon ñu yem si oto manqué paas seer a dem bi mais nag sant li si ëpp solo mooy dem ba yegg si jàmm rek waaw loolu daal moom bu amee yegg si jàmm rek bu amee sant yàlla bu baax parce que yàlla sëñ Bamba la ziyaare ji te yàlla la doon liggéeyal te képp kuy liggéeyal yàlla boo koy ziyaare ji yoonu mënul yombee noonu ndax Bamba bi mu dem si géej gi seddul woon yombul woon daa métti woon te yaakaar naa lam fa dajoon nit ñun amul kenn koo xam ne nii mën nga am mbaam maam bu ko daj wala kenn leen lu ko daj kon buñ dee lu métti métti ñun dañ koy rek waaw di ñaan yàlla tamit yàgg koo fekkee ay rek moo si daal alors euh, mën nga ma wax par rapport ak euh, paas bi baram bi ay ñaata naan ñu 15000 sànq nii rek bi ñuy génn bon la ñuy wax. fii nag ñu ngi naan ay euh, ko demee am waaw parce que dañuy dañuy ziare ci daal lu mu métti métti paas paas bi ñuy génnee méttiwul mais maanaam comme niñ lay niñ lay wutee moo métti waaw yéen a ngi koy jaayante mais ñoom ñu dawal yërmande waaw waaw buñ dawaloon yërmande tamit day gën te yaakaar naa ne ñoom bés bi war nañ see mën a amee yàlla waaw ñoom bés bi war nañ see mën a amee yàlla ñun dañ ni ñuy def di ziare ji ñoom même buñ ziare wil bamba it war nañ see mën a dawal ba am ci yàlla tamit waaw ndax bamba yàlla koy fayal sëñ Tuubaa de moom bu dee un million gars yi dagg bi dem Touba sëñ Tuubaa moo ñor ñëpp parce que ki sëñ Tuubaa ñor buñ nee billet un million du ci teg baat man de buñ nee dix mille moo fay dem parce que bisub sëñ Tuubaa la am na ñuy jóge ba Europe di dagg billet di ñëw màggal dellu kon bu sëñ Touba wootee diggante fii ak Dakar eh, Dakar ak Touba bu ñu defee cinquante mille barki sëñ Fallou Mbacke ñu fay ko dem ñëw. waaw non yéen leen ko ah, ci jaayante waaye tamit eh, ci dëkk bi nu mu metee ah, xaalis amul aussi tamit eh, loo xamante ne trois mille la woon ñu yokk ko ba ay dix mille ak quinze mille tamit ndax lu jaadu la. waaw xam nga chauffeur moom chaque jour day day profité te àddina moom boo ci nekkee di profité soo paree ca la ngay def maanaam la nga doon profité. mën naa yàqu mën naa naax saay parce que di nga gis ko yóbbee 8000 dem ba ci àll ba pann nga gis ko yóbbee 3000 dem àll ñëwaat ñibbisi parce que lépp rek maanaam ci oyofal la parce que bisub sëñ Tuubaa la moo tax ñëpp war a oyofal parce que sëñ Muntaxa loolu la diglee nan oyofal lépp ba bis bi jàll leneen lépp leneen lu ci waay def nga def ko waaye bisub sëriñ Tuubaa moom bu dikkee war na yokk dara dañ ko war a def benn prix ñëpp dem ci jàmm dikk ci jàmm barkeb sëñ Fallu parce que Tuubaa dafa yokk de oto bu ndaw ñetti junni ngay fay bu dee oto bu mag bi nga fay huit mille francs xam nga loolu moom waaye nag sëñ Tuubaa moo ñu ko ba léegi ñu ngi fi de te nag ko waa ñëwnu jël nag dina ci baax daal mais seeraay bi euh, fan nga gis ni euh, lan nga gis ni ko waral ah wax dëgg yàlla loolu ma ko de xaw ma ko de xam daa daal moom magal ngay tax ñu yokk ko moom waaw moo tax ñu yokk waaye boo amoon quatre mille wala trois mille la nga dem Touba wax dëgg yàlla waaye fi duñ nii moom saf na sap yàgg nga fi ah soo ba léegi ma soof ne ma ñaqan nii te li may maa ngi di jaay ni ay masque lay jaay xool damay jaay ngi ni maa ngi ci mbubu sawi di ko jaay gis nga ku ma kenn ku ma ñaata xanaa yow sax nga jàpp ci jënd ci benn deux mille lay jar rek jàpp ci mbokk ndax jox ndem Tuuba bokk sëñ bi incha allah dina jar ah bëgg ah, amin waay na sap ni waaye sëñ Tuuba jaral leen lu waaye nag fi mu nii moom ah tàng na jër ñu ngi bëgg dee soo ba léegi ñu ngi dem Touba la bëgg waaye ñetti junni moom moom nga fay oto bu ndaw soo dee oto yu mag fay junne juróom-benn téeméer seer na de. gis nga ni mu demee quoi oto yaa ngi fees dellu waaye fi teg prix moom dafa xaw a seer lool parce que fii ay dix mille ay douze mille ay onze mille day xaw a compliqué carrément. dix mille lool moom. d'habitude ñaata ngeen daan fay. fii moom donc fay fi trois mille fay fi cinq mille. xawoon na sax mu xaw a cher koo xam ne moom a xaw a wàññeeku quoi. mais dafa xaw a cher. lan nga gis ñàkk yërmande ci chauffeur yi wala cherum carburant bi. waaw donc loolu aussi am na solo carburant bi bu seer aussi chauffeur yi am nañ droit yokk seen prix mais nañu aussi nañ xool ne ñii ñu bëgg a dem quoi moo tax nañu wàññi tuuti def ngir Sëñ Tuubaa rek xanaa màggal ñi ba bëgg a dem. gi moom wax dëgg yàlla ñoo ngi nii bëgg a dem Touba incha allah mais paas yi seer na mais seeraay du ci dara ñun sëñ bi nañu ko màggal gi jaral nañu ko mais gisuñu oto ñu ngi nii taxaw. donc oto kay am na fi mais dafa cher lañ ma am na fi mais dafa cher. waaw mais ci kaw seer gi tamit gis nga bii ñëw na 8000 la wax mais dugg na ñu ne dafa fees fees na. am na bu def 9000 tamit. Uh-huh. mais xaw ma fu ñu yebee baa mais dañu yeb ñëw fees xam nga. lu mu fee mu cher cher cher. jaral nañu ko danañ dem. moom di nga jox ñu delloo la paas nga des sa xaas dem Bamba jaral nañu ko. oto moo amagul sànq laa fi ñëwoon mais gisaguma oto quoi. Hmm. waaw. Euh, mais aussi euh, par rapport ak paas yi yéen nga ne dafa cher. waaw paas yi maa ngi dégg oto bu ndaw ay 15000 sax. Hmm. waaw mais nañ gis oto rek. waaw lu ñu mënti wax jar na ko waaw non cent mille sax jaral nañ ko ah. Bamba moom réew mi mais nag ñëpp amuñu ko ñi bëgg a dem aussi te ñu ko waaw mais tamit adduna yàlla yamalewul lépp mhm. loolu yàgg na fi gaa nañ doxal yërmande rek mais ñu ko mën tamit xam na dañ jàppal ñu amul waaw mais suñu gisee oto moom ñun dañuy dem moom waaw oto ñu dawee cent quinze mille lañ yebee ñetti junni ñetti junni waaw bis yi di yebee ñaari junni daa metti trop te dëkk bi mooy loolu gis nga mbooloo bi taxaw bi yëpp dañoo bëgg a dem màggali sëñ Tuubaa ma woo de te sëñ moom ku mu jaral su la laajee trente mille ta war nga see mën a def waaw mën na jaral na ma moom man de moom nañ ñu wàññi paas ñu mën a dem Touba ziare gi sëñ bi ñaanal leen ñoom ñii ndax seen liggéey mën a avancé nag daf koo jar nag waaw benn bis na ay 15000 ak jaral nañ ko de ñun waaye ñoom nag nañ ko wàññi dañuy ñi dem nag nañuy sonn. mais ñoom nee nañ carburant bi moo cher. moom carburant gars bu yàgg ñi dañuy de yéen lañ bëgg a tuur lëndëm dañuy wuy ma nañ ko wàññi ñu xool seen léppay baax mbirum sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek nañ ko wàññi seen. 8 000 9 000. 8 000 9 000. 8 000 9 000. instant bi dañuy si 10 jaaxle ngeen toog ngeen toog fi mu lu tax. waaw wax toogaayu jaaxle lañ toog moom parce que Serigne ba léegi ñu ngi fii. 9h ba tey. la oto ñoo seer. 9000 10000. Ah, mais sëñ Bamba jar na ko. ah Bamba jar na ko. Bamba moom jar na lopp lool mais buñ ko yoroon duñ toog sax fii di waxaale baat gis sëñ Fallou konoon dañ koy fay dem konoon tey dugg nañ Touba. la waaye dañ koy yorul. lan ngeen di wax chauffeur si. ah lan ngeen di wax chauffeur si. lan la ñu wax ñu wàññi paas bi waaw waaye ñu mu def ko gratuit. oto am na mais gars yi dañ teg teg loxo. waaw daa cher. 10 000 lañ wax. 10 000. waaw. gën na moom. Euh, lan nga jàpp ne moo ko waral yokk bi. ñoom ah peut être si gasoil bi la ma ne peut être si gasoil bi la mais du tey ñoom dañoo doon yërmande xool sëñ Bamba Cheikh Ibra Fall ñi woo ñi moom bésu màggal gi te ñu ay kii lañ ñu jàppale ñu ay yaay Fall lañ waaw waaw ñu ngi liggéey sëñ Touba Cheikh Ibra Fall. juróomi téeméer wala juróom-benn téeméer. waaw ñun 7000 sax baax na ba 6000. ba 7000 sax baax na. waaw wala 15000 ah ay 10 000 dafa bari. dafa bëri si ñun te dëkk bi daa métti. <laughs> yàlla yàlla def yoonu jàmm. jërëjëf amuñu bokk waa. ndax chaque année nii la chaque événement ñu yokk te dañuy xam ne lii màggal la rek ku ci def lu baax lu ne sa bopp nga koy defal waaye nag nit ñaa ngi daw du ut lu ñu am di ut lu ñu seenu njaboot ñu ñëw yokk seen paas ba nga xamante ne bii sax ñoom bu ñu yorul woon oto duñ ko man dañ dawal yërmande wax leen ci jàpp leen ci dawal yërmande njaay yi mën a jar yoon yi mën a yomb. yàlla def jàmm. këram ah? cent franc rek. ah xam yokkoo sa këram dama la neexoon yokk. dama la yokk su ma la ko def ko deux cent ba trois cent. Ah, waaye cent franc rek laa koy def. jërëjëf yaa ngi yërmande rek. chetetetet mais yow sa ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablet